rahmatullahi taala wa barakaatuhu ay kàddu yu nuyoo ak yu ànd ak cant rafetlu seen tànk yi suñ la ak délégation bi ngeen àndal yéen ñëpp di rafetlu seen tànk yi ak seen yitte yi ci sama tuur man mii di wax ak ak tuuru sunu mbokk yi ñu fi bokkal teew euh, te bokk ñoom liggéey bi ci fànn yëpp ndax ay taalibe la ñu ñëpp bokk nekk ci dëkk bi bu ñu amee yitte yoo xam ne dafa jëm si ci dëkk bi euh, waras na ci mën a taxaw sunu taxawaayu bopp boo xam ne taxawaayu taalibe la waaye taxaw fii taxawaay boo xam ne euh, ñi ñu àndal di sunuy mbokki taalibe yu bokk ci tànn bi sëriñ bi tànnal boppam ak i bokkam ngir ñu taxawal ko ci yitte yi nga xam ne mooy li doxal liggéeyu dëkk bi ci ñi ñëw di indi ay liggéey wala ñi fiy fekk di ànd ñoom ci liggéey ci turu monsieur le maire Abdou Lahad Ka ak l'ensemble euh, conseil municipal bi yëpp ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm dégg nañ seen kàddu euh, ni ko ñi jiitu ci kàddu yi waxee rek lii day farata ju mënta ñàkk ci nit euh, xalaat bu nit yëkkati nag buy war a tax loola jàppande ci nit ki rek euh, ba agsi ci dëkk bi résultat bi fii la war a ëppe ndax lu bari yaakaar yi fi nekk waaye ñi dox daje ci dëkk bi dafa bari te xam ak ràññee ñu ci bari defuñu ko waaye li war a tax ñu xam wala li war a tax ñu ràññee seen jéego yi seen tànk yi ak seen yéene yi bokk na ci kon bu dee loo xam ne day war garu sëriñ bi war mbooloo mi mu tànn ñu koy liggéeyal ba ngeen agsi soxla ko ci ñoom jàpp leen ne dafay yokk waaye du fi wàññi ko kon rafet nañ jort ne liggéey la boo xam ne yéen ñi fi teew teewal fi état bi ak partenaire technique yi leen di jàppale ci organisme internationale yépp nag ñoo ngi leen ci sant te di leen ci tàllal loxo tey wax ak euh, askan waa département de Mbacké gi yépp waaye rawatina commune Touba di ko tàmbalee ci kilifa yi boroom kër yi muy kilifa gu góor ak kilifa gu jigéen ñuy bàyyi xel ci li nga xam ne day gunge nit ku gane àdduna te di ko amal njariñ ci àdduna ndax àdduna lañu nekk muy képp koo xamante ni kii gane nga àdduna moo xam da nga ko defee ci kër gi wala ca barab ya ñuy saytoo wér-gu-yaramu doomu aadama ngay bàyyi xel ne nit ki niñ koy waajale di ko wutal aw tur ci bu bis ba dellusee walla bis bañ ko jàpp tudd ni la ware ci nit ki ñu màndargaal ko ci lii tënk réew mi ci barab yi nga xam ne fi lañu ñu war a xàmmikoo ni nit gane ne àdduna bi sàngam mu am ko muy àq ki nga xam ne moo gane àdduna te war koo am te moom mi gane si àdduna dañ ko ko war a wutal te ñi mu war ñu war ko ko wutal jiituwu ci ndey ak baay te wut gi ci teel dafa bari njariñ junj nañ ko fi sànq ci li nga xam ne wut gi jiteel am na njariñ mooy nit ki am màndargawu gën àdduna am mu amal ko njariñ ndax dafa war ñu ko taxawal ba wutal ko ko waaye mu amal ko njariñ ci bu ko yittewoo ci war a toll ci xamlu wala tollu ci ràññee wala tollu ci lijjanti boppam fa ko tëlee woon bu demee ba soxla ko ñu wutal ko ko te wutin wa tegu ci wutinu yoon bëgg na nit kuy wutal nit kayitu juddu nga wute ko ci barab yi nga xam ne fa lañ ko war a wute waaye dend ak sa benn mbokk wala sa xarit wala sa am di jàmm mu ne la jox ma nangam wutali la ko nga bëgg lu yomb ba defloo ko ko noppal na say tànk waaye ëllëg mën na laa sonal ci boo amee yitte ndax baax na wala baaxut ci biir loolu it ma ci jàngat lu bari ndax dama koy faral di dund ci njaboot yu bari mooy bu yàlla dogalee nit bàyyi koo fi ba ñuy war a toll ci bàddali gannaawam toujours day am jafe-jafe waxtu wu nekk ci liñ naan jugement d'hérédité ni ñuy wute kayitu juddu nit boo amee benn soxna wala ñaar wala ñett wala ñeent comme ni ñu ko lislaam digalee nga nekk kilifa njaboot gi bu fi nit juddoo yow la war nga dem déclarer ko waaye da nga am waajur wu tudd moor waajur wu góor tudd moor jur wu jigéen tudd faatu kii dem di déclarer ji moor day wane ne moor mooy baayam sant nangam bu ëllëgee keneen ñëw juddoo ci kër gi wane indi sëñ moor bu ëllëgee keneen juddoo ci kër gi indi alaaji moor muy yett yu bokkut te ñoom ñëpp ñoo bokk ndey ak baay wala ñoo bokk baay day faral di am ñu bàyyi xel tamit ci déclaration bi booy dem di yóbbu ñi ëpp dañuy farataal turu nit ki juddu bañ koy wutal kayit waaye dañuy fàtte ne baayam lii moo nekk ci kayitam alaajee ci nekk wala sëriñ wala tur wi kepp day mat bàyyi xel kër bu fa mbooloo juddoo ñoo war bokk tur wi nekk ci seen këyitu juddu baay nekk seen këyitu juddu ndey dafa baax ñu ci bàyyi xel ci ki bokk ci membre famille bi moo xam ndey la wala bàyyi wala kañu délégué moo war leen ko wutali ñu koy bokkale loolu it lu mat a bàyyi xel la am ngi baax na amee ko fi ñu ko war a amee gën ko amee ko fi ko war a amee di njariñ waaye xool ne nit ki am na mag wala mu am rakk ñu bokk ba bu nekkoon ab limite bu këyit yëpp dajee ñu xam ne seen turu baay bi nekk ci seen kayit carte d'identité baay moo nekk ci seen kayit ñoom ñëpp ci ku góor ki ak ku jigéen ki loolu c'est important pour ñu bàyyi ci xel kon ni ma ko waxee woon sànq rek dañ leen di sant ci tànk yi ndax lii kët moo war boroom kër bu ne waaye ku ne xam na fi jamono tollu ci sàgganteeg doomu aadama waaye fi jamono toll ngir nit ñi jàpp ne lu ñu yëngu rek am na lu leen ca war ba tax na ñu tayal koo def defi kon bu ngeen yëkkati bu lii bu ko nguur gi yëkkatee jaarale ko ci ay bànqaas ngeen bokk ci bànqaas bi saytu li jëm si ci dëkk bu sell bi li ñuy njëkk def mooy ñaanal leen yàlla suñu borom defal leen ci ndam ndax nii ngeen fi ñëwee am na ñu dem feneen kon ñu ngi ñaan résultat bi ngeen di amee ci département bi euh, mu nekk résultat boo xam xamante ni bii yeneen département yi dañ ciy roye mm-hmm. ñu dund nag ba lii ngeen yore ñu weesu ko gannaaw taxawal luy sàmm ni nit ñi ndax lii ko ab diggante rek la war a doon warta nekk lu sax lu fiy nekk nit ñi di am jafe-jafe bi wala ñuy ñàkk dégg ne lii war na leen ñuy ñaan yàlla ñu ñuy déglu te di ñu seetaan te xam ne war nañoo dégg ñu dégg lii xam ne mooy seen njariñ waaye bu ñu ko déggee ñu jàllale ko lii lu ñuy tënke fi barab la bëgg mu tasaaroo ku ko seetaan wala nga déglu ko danga ko dégg waaye li ñuy ñaan boo ko déggee nga tasaare ko ku ci war a jot jot ci xam ne ndimbalal ki juddu la te waru garam la ni ko soxnaa yi da waxe mu war koo am te ñi fekkee ak juddoom te yilif ko ñoo ko war a wutal kon day mel ne day waru gar woo xam ne bu war la ci kilifa yi ñu koy wutal njaboot gi waaye ñuy bàyyi xel ni mu ko tënke woon sànq rek ci wuti nuy ak fañ koy wute li soxna ay it wax am na solo euh, ak sunu mbokki taalibe yi ñu fi nekkal te bokk liggéey bi des na ko àggale mais monsieur le maire. baax na ci ginnaaw nit ki fa mu juddoo fa lay génne. dem këram ba fay jege dem feneen di ko wuti. day mel ne maanaam euh, mu jege leen. dana baax ci ñoom. te loolu jàpp naa ne bu ñu xoolee ak ñu yore district sanitaire yi. muy post de santé yi wala lu ni mel. waxtaan ci ak ñu yor liggéey boobu. bu dee lu ñuy war a def la ngir mu amal askan wi njariñ du du yéexe ci monsieur le maire du yéexe it ci ñi nga xam ne lay teg seen loxo loolu ñu war ko lijjanti war koo dox sëñ Mor ñu ngi lay sant bu baax ci turu sunu mbokk yi ñu siqal liggéey bi nga xam ne ñoo bokk fu ñu nekk di nekk ay ndawi sëriñ bi ci liñ koy doxal te yow nga fare ñu ci ñoom ba tax jataay bi am ak yi ko jiitu woon ak yi ci kanam ñu rafet njot ci loolu di ñaan yàlla suñu borom di leen xamal ne am nañ interlocuteur bu valable ci seen diggante ak commune bi ci seen diggante ak conseil municipal bi mais seen diggante ak dëkk bi euh, mate na ko te taxawaayam day mel ne maa fa taxaw taxawaayam day mel ne général Diène Guèye moo fa taxaw taxawaayam day mel ne Serigne Bachirou moo fa taxaw taxawaayam day mel ne Ndiamé moo fa taxaw kon ñu ngi yamale foofu kàddu yi tey ñaan yàlla ñi ñuy déglu yàlla na ñu dégg bu ñu demee ba ca kanam gis résultat wu li tax ñu doon daje. ndax lii daa am lu ko waral am lu ñu bëgg. te li ñu bëgg ñi ñu ko bëggal ñoo ko moom. waaye di leen ko soññi di ci ñaax góor ak jigéen mag ak ndaw. ni ñu ko waxee ci turu monsieur le maire waaye ci turu Cheikh Abdoul Bachir moom sëriñ Abdou Khadir mi nga xam ne. moo yore kàddu sëriñ Mountakha. foofu lañ koy waxee foofit lañ bëgg ñu déggee ñu fa. ndax ci biir dëkk bi lañ nekk nekk ci biir kilifteef gi. bu ñuy wax dañ koy tënke fii nga xam ne dinañ fa dégge kàddu mm, yal na yàlla ak topp ba njariñ yi nga xam ne moo waral seen tànk yi feeñi ci ba ñëpp mën koo jëriñoo asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu acteurs yi ne ci département bi yëpp ku ne ca la nga yëngu ñoo ko sëq ak service technique yi nga xam ne au moins ci seen mission am nañ benn mission protection de l'enfant ñoo ñëpp ñu ngi ci te nag ñu ñëwoon au niveau de Touba ànd ak les membres du comité de suivi et de protection de l'enfant de la l'arrondissement de Ndam ñëw ci suñu wàllu plan de travail annuel sur l'état civil ñu ànd ci nag ak le maire de la commune de Touba Mosquée représenté par Morlo euh, ànd ci ak ay élus comme ku mel ni Serigne Bassirou Diagne ak général Diène Mais au niveau du conseil départemental aussi, il y a le doyen Alagnang, euh, qui est de la délégation, accompagné de service techniques. Nous avons l'inspecteur Cissé, chef de district, adjoint au, à l'inspecteur de l'éducation et de la formation. ci avons aussi ak avec euh, Kumba Kouloubari, président départemental euh, comité de promotion de la scolarisation des filles. Andici aussi ak euh, Oumar Cissé nekk euh, directeur du centre de promotion et de réinsertion sociale bokk ci aussi CDPE bi waaw xam nga nag ñun ci suñuy activité euh, yi jëm ci wàllu plan d'action sur l'enregistrement des naissances ak les déclarations de naissance dañ cee amoon nag benn activité bu ñu naa plaidoyer auprès des autorités religieuses parce que ku xam département Mbacké xam ne département la boo xamante nii euh, diine moo fi nekk nekk département boo xamante ne aussi euh, ndigal moo fi wéy te amul dara loo fi mën a def te àndoo ci aussi ak autorité religieuse yi parce que ñoom ci seen wàllu bopp seen kàddu egg na foo xam ni euh, suñ bos mënu faa yegg ci kaw loolu nag ñu ne il faut ñu waxtaan ak ñoom. wax leen ñu ñaax taalibe yi ñaax njaboot bi euh, ñu fonk wàllu kayitu juddu bi te ci kaw loolu ñuy ñaan aussi euh, njaboot ñi képp ku sa doom juddooti balaa bés bi dellu si wala bu bés bu dellu see nga ngénte ba pare nga dem déclarer ko mu am ay kayit ñu xam ne diw mii kat enregistré nañ ko ci état civilu Touba wala état civil u Mbàkke wala état civil u Taïf wala bu mën di doon ëllëg ak si biir xale bi du am benn gàllankoor ci wàllu kayit boobu parce que dañ seetlu ne muy fii muy feneen au niveau national sax laay wax problème mu kayit ju du problème la ñun nag en tant que acteur di yëngatu ci wàllu aar xale yi ak sàmm seen ak ak seen yelleef suñu devoir la pour ñu jóg taxaw jon ci wàllu woowu ndax ñu saafara ko loolu nag ñu ngi ci ànd ak euh, suñuy partenaire UNICEF tey jii ci wàllu plaidoyer boobu ñu ngi ñëwoon fii Darou Khoudoss seeti Serigne Ousmane Mbacké président comité d'organisation euh, du Grand Magal de Touba. cordinateur coordonnateur du comité d'organisation du Grand Magal. mais également euh, Serigne Glass Kaltoum ancien député à l'Assemblée nationale mais adjoint au maire aussi de la commune de Touba euh, nekkaat encore setu sëñ bi donc. amul ay voies comme ni ko tubaab di waxee aucune voie n'est plus autorisée que ces pour mën a waxtaan wax dëgg yàlla ci wàll wi ñaax taalibe yi ak askan wi parce que ñoom ñëpp ñun ñëpp ñoo ñu jowoote ñuy rafetlu nag wax dëgg yàlla waxtaan wi ñu fi jëlee ak xam-xam bi fi jëlee dem nañ sax ba jox ñu yeneen stratégie yoo xamante ni mooy gën a efficace sax ci li ñu nekk hmm. kon ñu leen di sant bu baax a baax di leen di gërëm.